jërëjëf mbokki internet ci bu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkel del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ki ba fi daal nag góor yàlla ñaankatu yàlla borom ijaaba la ñu gën ko xamee ci Cheikh Jamal ñenn ñi naan ko borom ijaaba bu yàggul rek lañu ko recevoir fële ci réewi Nigéria defal ko fa décoration jox ko trophée boo xam ni ci ràññeeku ci wàllu ñaan yàlla moo xam ci wàllu ilmu nujum moo xam ci médecine traditionnelle loolu lépp dinañ ko waxtaanee mbokk yi fi ñu commencé actualité bi la reddition des comptes ñenn ñaa ngi bëgg a ñoqali génn réew mi ñi ci bëgg a mucc nañ ñëw teel a déglu waxtaan wi teel a jël numéro bi waaye mbiru Ousmane Sonko bidéowam ci baatin moom ak Bassirou Diomaye est-ce que ànd nañ ci zahir wala ànd nañ ci baatin réew mi deret ji bëri na rayante yi bëri na loolu lépp buur géwél dina ko waxtaanee ak Cheikh Jamal borom Ijaaba Cheikh bi borom ngi lay nuyu di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay bàyyi la nga ñu lay seetaan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 alxaaji buur ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar yow ak euh, ñi ngi àndal di leen dalal suñu bopp mm-hmm. di nuyu umma islam bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu suñu xalifa généraux yi di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen dëgëral gën leen tàkk kàttanal mm-hmm. ndax ñoom ñoo yore kaaraange réew mi mm-hmm. di ndokkeel ñëpp ci weeru màgg bii nga xamante ni moom lañu nekk muy weeru gàmm muy weer woo xamante ni weeru am solo la ci jullit ñi muy ko ki nga xamante ni mu yonent Yàlla sallallahu alayhi moom la ñu màggal juddoom ki nga xamante ni yàlla wax na ko ci xadiisul qudsi yu ne ko fa lawlaaka lama xalaxtu say an bu dul woon ak yow du ma bind dara ki nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam wax ne bi may nekk yonantu booba aadama mu ngi si diggante ban bi ak ndox mi ki nga xamante ni nag moo gën suñu bàyyi lépp lu am yàlla moom moo tax mu amal ko ñu ngi siy ndokkeel ñuy jullit ak ñu dul jullit mm-hmm. ndax yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam jëriñu si moom mm-hmm. ndaxte doomi amul lu mu defal boromam ba war a tax boromam amal ko mm-hmm. su ko amalee rek yonte yàlla sallallahu alayhi wasallam moo tax mu amal ko kon kuy jullit ak ku dul ñëpp bénéficié wu nañ ci njëriñ li nga xamante ni moom la yonte yàlla sallallahu am mm-hmm. moo tax nag muy weer woo xamante ni weeru màgg la weeru barke la weeru si nit yàlla lu mu ci yàlla suñ borom ful ko lu mu ci def ci ay sarax suñu borom ful ko lu mu ci def ci ay lu baax suñu borom ful ko mm-hmm. kon koo xamante nii suñu borom dafa ne ko daf koy wax ci alxuraan ne ko mhm. dama wakkul la naqusu aleyka min am baai rusul maanu sabitu bi fu aadaka mhm. maa ngi lay fàttalil histoire ñi nga xamante ni ñoo la fi jiitoon yonent yu la fi jiitoon mhm. ngir dëgëralee ko sa xol bi su fekkee nag yonent yàlla sallallahu alayhi wa moom la yàlla di wax ñu ngi lay fàttalil histoire ñu la fi jiitoon ngir dëgëralee ko sa xol waxuma laa ñun ñi nga xamante ni ay jaam yu xeebu lañ ay jaam yu doxadi lañ kon ala kulli xaali ñun ñuy fàttaliku yonent yàlla ma sallallahu alayhi rafet ya mm. pour te koo dëgërale suñu ngëm yàlla mm. kon ñu ngi ndokkeel mboolem xalifa généraux mm. di àddina bi yëpp di si ndokkeel ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa cheikh bi bi nga déggee ñu ne suñu jumaa yëpp jumaa yu ci bëri ay signe franc-maçonnique moo ci nekk Cheikh Omar Diagne wax lu mel noonu naqari na Tijaan murit xaadir laayal ñeseen ba sax ne sunu mag ñi ñenn ñi ay nit kese la ñu seen i bindeem bi nga ko déggee ak tant waaw alaaji buur macha allah euh, question bi am na solo lool ndax biñ ko déggee Cheikh Omar Diagne nit la koo xamante ni jaam yàlla bu baax la mhm. nit koo xamante ni ku am xam-xam la mhm. kuy gëstu la erreur nag mënul ñàkk ci doomi aadama mhm. suñ mag ñi nag ñoom seen mbind new woon loo xamante ni lu ñuy bindal rek jëlee ko seen naf su bakkan lépp lu ñu wax rek yàlla suñ borom subhanahu wa taala moo leen ko jox mm-hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne al ulamaau warasatul anbiyaa yi mm-hmm. borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi kon naka la ni di amee wiraasu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi bind loo xamante ni ab xataa daf ciy am mm-hmm. kon ala kulli xaalin li nga xamante ni moom la suñ mag ñi baax ñi am ñu gëm ko ñun ñun ñu juju ci tarixa yaru ci màgg ci kon gisuñ ci benn xataa am maana bu amoon xataa maana ñoom seen i njaboot wala seen i ñoñ nangam ak nangam kon gis nañ yooyu noonu waaye nag erreur mënul ñàkk. ndax mbiru Cheikh Omar Diagne bi dafa am ñoo xamante ni dañ ci bëgg a profité mm-hmm. def ko règlement de compte te amaana loolu wax dëgg fi yàlla warul ndax la mbir moo xamante ni amul benn rapport ak état. Mm-hmm. ndax gis nañ sax ñuy génne ay vidéo yoo xamante ni ça date depuis 2015. Mm-hmm. di ko génnee ngir yooyu yëpp pour indi jafe-jafe suñ ne Cheikh Omar Diagne gëmul tarixa loolu tamit beneen affaire ndax Cheikh Omar Diagne. ci tarixa ci la juddu mm-hmm. ci la màgg ci la yaru ndax way juróom góor ci tarixa ci la judd ci la màgg ci la génn àddina moom tamit mu nekk ci kon ala kulli xaalin gëm na tarixa waaye nag damay ñaan rek sénégalais yi mooy ñu bañ manipulation bi nga xamante ni moo ci am ndax manipulation bi am ci lenn la rek mooy Dio Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ak usmaan Sonko moom moo neexul nit ñi donc su mm-hmm. fekkante neexul nit ñi nag képp koo xamante ne dangaa ànd ak ñoom porox ndoll bu ñu mën a jaar pour man yàq dañ koy yàq wasu kuréel loolu lañ ci. kon ñi naan diggante bi àndul yàgg yàgg danañu jàppante ndax Sonko dafa mel ni moo jiite. alhamdulilah alaaj buur ndaxte ñuy wax loolu yëpp pour man damaa jàpp ne <coughs> dañuy wax pour wax rek wala wax pour bëgg buzz wala wax pour bëgg. ak visibilité bu bëri ndax diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye seen rawxaan dafa ànd seen hmm. tabian dafa ànd diggante la boo xamante ni dinañ gouverner réew mi incha allah rabbi hmm. ci jàmm ci sutura ci tawféex ci teraanga xéwal yi dina bëri naataange dina bëri te seen diggante dina dem ba nga xamante ne ni ku si nekk ci ñoom ñaar dina toog joxaat ñeneen ñoo xamante ni seen i toppe la ñu toog te incha allahu rabbi wax naa la ko fii ne la bu soobee suñu borom subhaana wa taala ñoom waa Pastef danañ yore réew mi fii ak lu ëpp fanweeri at mbaa lu ko teg. kon ñi naan kon raw xaanu euh, Bassirou Diomaye euh, ñenn ñi ñi jàng xam-xamu ilmu nujum mm-hmm. dañ ni moom bidéewam xasad la mm-hmm. xasad nag ku ne xam ne mooy gaynde kay mm-hmm. te gaynde deret lay dundee ñenn ñu xëj na ñenn ñi ne ndorteelu at mi la moo tax réew mi tàng deret ji teel a teel a wal waaw alhamdulilah deret ji bëri gi mu fi bëri bëri woon na fi deret dina daan tuuru at bu nekk rek accident dina daan am ray yi dina daan am mais bu ni mel nag dafa xaw a particulier ndax li tax mu xaw a particulier mooy dañ ci gis yuñ gisutoon yoo xamante ni xamuñu woon ko ndax suñu demee ba mën a fekk nit ci biir appartement am mm-hmm. enquêtes yi di topp leeragul loolu dama ci lancé benn message. Mm-hmm. mooy képp koo xamante ni yaa ngi nekk ab sénégalais dangaa war a déglu ñii nga xamante ni ni ñoom ñooy yore wàllum yoon. Mm-hmm. suñ ne diw dee na dañ ko fekk ci ab appartement am ko. yow amoo droit defal sa bopp justice wala di waxal sa bopp naan mbir mi nii la fa demee te la ngay wax wóorul la ndax ko dénk ñu ngi ko jël teg ko ci attey këru attekaay yi mhm. li ñu ci war a déglu mooy procureur de la république wala mhm. procureur bi nga xamante moom moo nekk ci tribunal ba nga xamante ne fa la ñuy attee ñooñee mhm. wala ñuy déglu ci dig bi nga xamante ni ñoom ñoo yore li nga xamante moom mooy enquête bi ñu war leen cee déglu kon ñooñu suñu génnee wax ñu soog mun a xam waaye da ngay gis fukk ne ne di wa ray di wa nangam di nga nangam te loolu di di tuumaal nit ki te kenn xamul parce que doomu aadama bi yoon dafay xam ne tànk bu ñu ko jàppee tant que atte wuñ ko dem ba nga xamante nii mhm. dem na ba affaire bi jeex. Mhm. yoon daf koy daf koy jox li nga xamante ne moo di. présomption d'innocence d'accord naa. tant que demul ba enquête bi jeex. Mhm. ba nga xamante ne def nañ appel. maam mbooleen moyens yu ñu am ci wàllum yoon def nañ ko ba xamante ne fi mu ne nii yegg nañ fa mbaxana doonee benn fu yoon doonee benn lépp jeex. tant loolu amul rek nit ki dañuy jàpp ne wax dëgg fa la defagul. defagul kon nag lu tax ñu am fi yoon yoon yi te jamono ji yàggul dara ñu ngi génne ci assises euh, de la justice mm-hmm. bu nekk assises yoo xamante ne yoo am am solo la mm-hmm. te lañ fa tënk balaa yàgg dara feeg ay quelques fan insha allah rabbi dinañ gis ne lañ tënkoon fële ca jam ñaajo mm-hmm. yoon mu ngi koy mu ngi koy doxal ci ni mu waree waaye deret ji nag li ci bëri nii wax dëgg fi yàlla ñàkk kaaraange waral na ko. danaa ci ñëw danaa ci ñëw waaw ñàkk kaaraange waral na ko alaaji buur moo tax deret ji bëri tey la reddition des comptes am na ñu ñuy tongale ah le ministre Abdoulaye Seydou Sow rek démb dëppee nañ ko ci aéroport. Mhm. keroog le ministre Lat Diop. Mhm. maanaam état mu ngi taxaw tembe. Mhm. pour képp ku luubaloon wala nga rawale woon àllu réew mi ñu mën la teg loxo nga delloowaat ko askan. waaw xam nga réew réew bu bëgg bu bëgg a baax faw réew moom am yoon parce que munuñ fee ne dañoo dénkoon ay nit yoon du réew mi bi leen ko déngee ci fukki at ak ñaar biir fukki at ak ñaar yooyu ñu paree dem. ndax sa kër sax yow boo ko luyee nit soo ko waree luyewaat keneen buy génn ngeen war a ñëw ngeen def état des lieux mm-hmm. xool ndax am na lu ci baax ak lu ci baaxu ndax la ma ko joxewoon kër noonu la ko delloobee mm-hmm. kon lii dangay ngay jàpp ne état des lieux la mooy li nga xam mooy la reddition des comptes mm-hmm. ndaxte dañ fay wax ne dañ fee luubal ay milliards wax nañ fi 1000 milliards Covid yi wax nañ fi 94 milliards wax nañ fi vingt neuf milliards Prodac mm. wax nañ fi wax nañ fi wax nañ fi wax nañ fi ba ci wàllum équipe nationale bii nii sax nga xamante ne ci mbiru ci mbiru ci ci mbiru football bi mm-hmm. xaalis bañ leen joxoon ñu dem coupe d'Afrique mm. yi ci ëpp dañ koo luubal kon képp koo xamante ni njortu nañ ne dangaa nekk ci biir wax dëgg fa yàlla yoon li mu war a def mooy soo waree génn tax ku génn génnam rek la xam ne xamoo ñëwam mhm. xamoo fan la mën jaar xaw ma nan la mën a def te est ce que mën nga mën na dem réew boo xamante ne nii pour ñu soxla ko pour mu ñibbisaat pour nekk problème kon su boobaa day jaadu ginnaaw ñu ngi ci enquête yi ñëpp ñu toog ba yëfi weesu waaye nag ci loolu di ci wax benn révélation mooy que yooxu dina jub fu ko foogewul woon loolu mooy lan Cheikh ñu bëree bëri bëri am na ci ñoo xamante ni sax dañuy woowee seen bopp ay kilifa diine lañu. Mhm. yoon dina jëflante ak ñoom teg leen loxo te bëri na ñu ñuy jàpp ci wàllum reddition des comptes bii nii seen coow ci mbirum suuf la. ñu suuf coowal suuf la ñu bëree bari dañoo laale ci wàllum suuf te ñooñee nag buñ amul ñaan seen mbiru du baax buñ demee ci kaso gi dinañ fa yàgg lool walla bokk faw ñu am ñaan daal pour ñu mën a génn ci loolu tant que amuñu ñaan nag. pour ñu mucc ci loolu dafay nekk problème. mu ngi noonu Cheikh Jamal borom Ijaba loolu c'était des questions d'actualité. Mhm. jaadu na Cheikh bi. Mhm. dama ñëw ci haute distinction bi nga xamante ne que joxe nañu la ko fële ci Nigéria. Mhm. ci wàllu ñaan yàlla ak médecine traditionnelle. defe naa ni euh, moo moo nekk noonu. ñu jot li ma ko. di lu am solo parce que wolof njaay dafa ni dëgg dafay tungoom seede mooy international traditionnel heller and practitioner euh, xam anglais géwél la nag awaar waaw bu ma juumul daal euh, ci benn congrès boo xamante ne que dafay euh, feeñal wala boog ndokkeel ñi nga xamante ne que ñooy yëngu ci ñaan yàlla ak ci wàllu médecine traditionnelle man maa ngi soog gis sénégalais buñ ko décerné sama bët tegu ci nii alhamdulillah santaat yàlla bu baax a baax alaaji buur ndaxte réew bu Serigne Touba tëdd Cheikh Ibrahim tëdd fa Sidaaji Malik tëdd fa maam Limaamu tëdd fa kilifa diine yu màgg tëdd fa réew boobu suñ gëmee seen bopp lu ne danañ ko am dëgg la waaye sëriñ su bëri dañoo gëmutut seen bopp alaaji buur mm. ndax ñàkk gëm seen bopp tant que sëriñ si gëmut seen bopp duñ mën am dara mm. te complexe bi dafa bëri ci réew mi te li bëree bëri bari li ko yàq complexe la mm-hmm. ndax tey bu fekkente ni jël jugee koo nañ fi dem ba réew boo xamante ne nii. suñu mm-hmm. bàyyi dëkkuñ fa suñu yaay dëkkuñ fa amuñ fa benn mbokk. Mm-hmm. ñu dajale ci lu toll ci téeméeri nit. Mm-hmm. ci wàllum faj ci atum deux mille vingt et man ma bokk ci ñuy jël paie ci wàllum faj. loolu rëy na. loolu lu rëy waaye ne li ko maye mooy alxuraan ak sunna moo ko maye. ndax yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo wax ne udu allah bil ijaaba na mm. ngeen ñaan yàlla te ànd ak certitude si li ngeen di ñaan. Mm. nit ki booy ñaan te àndoo si ak certitude du dem. Mm. ñun nag lu bari si ñaan suñuy ñaanal nit ki li ñuy xool lu mu indaale. ndax indi na oto bu rafet ndax indi na cent mille wala deux cent mille loolu du ñaan. nit da ngay ñaanal nit ñi li wajilaay temps la def ci li nga ci war a def. ñu gisee résultat ëllëg mën nañ la defal teraanga joo xamante ni lu kawe sa njort la. Mm-hmm. waaye tant que ñu ngi siy jiital intérêt du dem. xam-xam nag mu Sénégal ba léegi. Mm-hmm. a léegi. ñi doon yàlla may wilaayat ñu ngi mu ngi leen koy may ba léegi ñi mu doon may lijaab mu ngi leen koy may ba léegi waaye nag problème bi mooy nit ñi ñoo gëmatul seen bopp. sax jamal ki mu war a ñaan yàlla. Mhm. yàlla nangul ko. Mhm. kan la war a doon. waaw xam nga alaaji buur ñaan yàlla dafa am ay sarta. Mhm. muy ay surut. nit ki buy ñaan yàlla bu si njëkk d'abord faw mu xam moom ki muy ñaan kan la. parce que ki bàyyee këram ñëw ba si yow pour bëgg nga ñaanal ko dafa am ci yaakaar. mais yow ki ngay tawat soxla bi ala kulli xaalin nga xam mooy kan. Hmm. dafa am ay charte yoo xamante ni moom ngay méngóog pour mën a jokkoog sa borom directement. Hmm. te yooyu yu koy waral mooy nga gëstu xam-xam li ci mel ni ci almu nujum li ci hmm. mel ni ci almul fëlëg li ci mel ni ci almul ramlu li ci mel ni ci almul adat li ci mel ni ci mel ni ci mboolem xeetu xam-xam yi. mais li ngay wax ne koo xamul mënoo ñaanal nit. te loolu moo bëri ci dëkk bi. loolu mooy problème bi. nit nag mun naa ñàkk a xam li yëpp. mu nekk tudd tudd ko du yàlla. di tudd yàlla comme ni ko yàlla wax alaa bi zikrillah tatma'innul qulub Mhm. tudd yàlla dafay wéral xol yàlla ne faskuruni askurkum tudd leen mu tudd leen nit ki dana leen ba tudd yàlla ba jeex tàkk si boromam ba subaa mook borom dañu am connexion direct boo xamante ne lum ñaan suñ borom rek suñ borom daf koy fajal aajo boobu noonu mhm. waaye nag ñaan yàlla pour nga ñaan sa borom mu nangu la faw bi si jiitu mooy ngay wax nit ñi dëgg te bañ di def mbiru miracle ndax mhm. miracle Sénégal yi bëri miracle la ñu topp ah, dañuy ñëw xool ndax am nga béjjën bu xonq ndax am nga morse bu xonq te loolu du miracle. Mm-hmm. miracle suñ ko doon topp tubaab yi la ñuy topp. ki nga xamante dafa yëkkati ton muy naaw ci kaw jaww ji. Mm-hmm. te daanuwul yëkkati ton teg ko ci kaw géej gi te suuxul. kon suñ doon topp miracle kooku la topp. miracle na bi gën a mag ci sëriñ mooy nga ñaan suñ borom nangul la. te nga mm-hmm. ñaan suñu borom nangul la mooy ngay wax dëgg di lekk lu lew. musal sa bopp ci ñooñ maanaam aar sa bopp ci la nga xamante moom moo di ci ci ci mooy yàlla yii ne tànk doomu aadama mu ngi ciy góorgóorlu ci mucc rek ala kulli xaalin lum ñaan boromam suñ borom dina ko ko nangul lépp lu mu jëfalante nit ñi nit ñi dinañ ci gis résultat alhamdulilah. sëñ bi tey su ma doon de votre succès. Mhm. ba koo jëflanteel du ma ne à cent pour cent. Mhm. mais mën nañu wax ne à quatre vingt dix neuf virgule nangam pour cent. Mhm. Cheikh Jamal bu jëflanteeg ci ñoom ci wàllu ñaan yàlla bu ñu demee sant. waaw alhamdulilah loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax suñ borom moom mooy maye. te moom moo ñu dimbali boole ñu ak doomu aadama yi ñu leen ñaanal ñu mën a gis résultat. te loolee li ko waral nag man damay wax ne succès boobu lu ma ko may du lenn lu dut jëflante nit ñi ci dëgg ak wax leen dëgg ak wax leen li mën a ne. doomu aadama bi du daf lay téléphoné allo sëñ bi sama bëñ day metti rek nga ne ko xaaral ma jox la nangam nga jëfandikoo. dama tëju wala nangam déedéet lii nga war a war jiitu pour nga ñaanal doomu aadama bu ñëwee. mooy da nga ko war a dalal waxtaan ak moom. Mm-hmm. delloo ci xelam ba nga xamante ni poids bu diis bu mu yenoon ba muy jógee ko këram wàcceeku na nga soog ko laaj lan mooy aajoom. même sëñ la majeure partie sëriñ si dañ lay tiital ba client bi mën a génn xaalis ni ma gisee sa mbir ni ma gisee sa mbir doom ni ma gisee gisee sa mbiru jëkkër mm-hmm. te sax ci seet duñ ci jaar na alxuraan moo ne waatul bu na yëti bi abwaabiha la majeure partie duñu jël temps wu xool mbiru nit ki sax ba mën ko ba xam fan lay jaar mbiram. li may wax rek. li war a jiitu si nit ki pour nga ñaanal ko mooy seet. Mm-hmm. nit ki da ko war a seetal parce que soo ko seetul mënoo koo ñaanal ñun ñëpp suñu bopp mën naa métti nga dem ci pharmacie bi ñu jox la garab nga utiliser ko nga gisu résultat man du ma si gis résultat. Mm-hmm. parce que sa bopp bu fekkee li koy métti tension la man sama bopp li koy métti di manqué nelaw est ce que war nañ mën a bokk mm-hmm. garab bu ñuy faj. du noonu li jiitu mooy da ngay xool doomi aadama bi soo ko xoolee ba noppi xam lan mooy raw xaanam nit di nga am xam bu ne. nga ñaanal nit du gis résultat ndax bu fekkente yow muy ñaan ak ki ngay ñaanal seeni arwaax compatible mënoo koo ñaanal ba mu nangu ala kulli xaalin yow sëriñ nga xool man li may def ak ki may ñaanal ndax suñu mbir méngoo na ba pare hmm. bu mbir mbiri méngoowee nag moo lay permettre nga mën koo ñaanal mu nangu nga xam lan mooy rawxaanam nga xam lan mooy tabiam nga xam moom ci ban état de matière la bokk moom nitu ndox la wala nitu suuf la wala nitu ngelaw la wala nitu safara la su ko defee nag ci yooyu nga wax ko liy saraxam bu amee sarax boo xam ñaan mooy sarax mooy faj ay aajoom nga wax ko sarax mm-hmm. bu dee cangal la nga wax ko ko bu fekkante ni euh, tëju xalwa la nga wax ko ko ak li mën a doon rek nga wax ko ko waaye yoon boobu boo fa jaaree ak moom rek incha allah rabbi aajum dina faju te yow sëriñ bi doo sonn te doo utal sa bopp tamit wax dëgg fi la sens interdit mm. mbedd bu la neex mën ngaa jaar heure bu la neex man ngaa dem dem naa ni dem naa ni ji café wax dëgg fi yàlla te doo ci am benn problème moom xaalis yomb na xaalis xaalis boo ko dégg nit ki mënu ko am te maanaam te te ubbeekuwul mm-hmm. te fi may réew mi nag ñëpp loolu seen problème xaalis mm-hmm. waxuma waxuma weccit ya xaalis ni bool bool naan xaalis mm-hmm. waaw alhamdulilah yàlla moo ne maa farat naa fil kitaabi min shay'in sama alxuraan ji manqué wul dara lépp a ngi fi mu waxaat yaa ayyuhan naas qad jaatkum mawizatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa huddan wa rahmatun lil muminina yàlla neen dafa wàcce alxuraan mu nekk saafara pour saafara lañ suñ mboole mi jàngoro ñàkk feebar la dëgg la bu bon bëgg soxna mu tëla feebar la mhm. bëgg liggéey mu tëla feebar la d'accord loolu yëpp nag nekk feebar mhm. waaye pour doomi aadama mu am moo gën a yomb looy gis. nit ki am xaalis. wallaahi la nit ki pour mu am alal am na loo xamante ni alaaji buur maa ngi koy liggéey. Mm-hmm. benn càngaro maa koy si juróom-ñaari kaw garab yi bokkul. juróom-ñaari tobb. ak juróom-ñaari ndoxu teen. Mm-hmm. bu ma ko liggéey ba jox ko doomu aadama mu koy jëfandikoo alal daf koy yomb wërsëg daf koy yomb succès daf koy yomb lum dugg suñ borom yombal ko. Mm-hmm. te loolee képp ko ma si mos a jëfalanteel gis na résultat. ku wet di ñëwal seet. alaaji buur dama ne la. Mm-hmm. càngat googu képp ku ma ko mos a defal moo xam concours ngay def. Mm-hmm. ak concours bu mu mën a doon suñu borom daf la ciy may ndam. Mm-hmm. ak concours bu mën a doon nag suñ borom daf la ciy may ndam. boo ne buñ ñu ne yow concours bi nga jàpp man duma ko dama duma ko réussir. boo defee concours bi da ci am résultat. parce que li ñuy wax ni suñ borom defal nañu ci defal nañu ci tawféex bu bu bu rëy rëy rëy alhamdulilah mm-hmm. ku ne lañuy la ñaanal kilifa gu nekk la ñuy ñaanal suñ borom dimbale nañu ñun jàmbu xew bi ñu samp ñoo xamante ni ay commissaire lañu ñu ñaanal ñoo xamante ni ay inspecteur de travail lañu ñu naanal mm-hmm. ñoo xamante ni nii liggéey bu ne am nañu ko ba doon dem bay gérer affaire étrangère seen communication mm-hmm. te loolu yàlla mu ngi ko jaarle ci jàmbu xew bi di Cheikh Jamal raison pour laquelle ñu may woowee borom ijaaba borom ijaaba du man maa ko tuddee sama bopp ijaaba da yombul waaye nit ñi ñoo dem ba gis ne kat kii lum ñaan suñ borom nangu ko kon danañ ko tuddee boroom ijaaba mhm. waaye nag alhamdulilah ki ka njëkk wax mu barke ci moom tur bi di dem dem ba law tur bi di dem di dem ba law Cheikh Jamal borom ijaaba nee naa ñaan yàlla yomb na mhm. waaye ñaan yàlla mu nangul la mooy li jafe Cheikh bi li ci ëpp sama mbokk gambien yi dañ may jot souvent benn problème mooy buur de def naa Angleterre huit ans mënuma am Banjul benn terrain buur bi may ñëw Suède investir naa plus de quarante millions cinquante millions sama business dafa xëy rek ne club daan loolu umu la tëju la liggéey bon da koy def rab alhamdulilah <coughs> alaaji buur loolu li koy waral bëri na nit dinay liggéey di liggéey di am te du xam fu mu ko def mm-hmm. lum mu yaakaar mu tas nit dig ko du ko jox muy tëdd yaram bi diis muy bëgg a jóg mel ni kuñ sëf ci kaw lal bi dëgg dugg rek du ci am tawféex mm-hmm. su seetloo ñu naan ko dañ laa liggéey dañ laa nangam dañ laa nangam te yu ci bëree bëri bëri bëri cat moo koy waral mm-hmm. waaw wolof de nee na bu rayul rek seen mal ñun dañoo xeeb cat te loo xamante ne yonent Yàlla sallallahu alayhi daf ko ragaloon ba da si doon ñaan yàlla hmm. ba bokk na ci lu tax sax wàccee muy sababu nuzul ay ñaari ñaari suuraat yooyu nga xam ne muy mu muhawadatayni muy falaq ak naasi hmm. yàlla wàccee ko ba yàlla ne ko wallaahu yaxsimuka mina naas yàlla mooy la aar ci bët yi hmm. kon cat dafa nekk loo xamante ni du doy waar la moo gën a garaaw dëm mu jàpp la moo gën a garaaw nit dem ci sëriñ liggéey la cat li muy def moo gën a bondool yëpp li ko waral nag mooy cat la am na ñoo xam cat moo koy def ci ñoom. Hmm. mais am na ñoo xam ne dañu am àndandoor yoo xam ne àndandoor yu lañu àndandoor yi bëgguñ seen avancement luñ def rek duñ ci am tawfeex. Hmm. am ñoo xamante ni kazaalik tamit dañ leen liggéey dëddale leen ab lépp luy am am àddina am ñoo xam dañ leen dëddale ak xaalis. Hmm. yor day mel ni xaalis tant que lakkuñ ko rek. jaayuñ loxo bu bënn. loxo bu bënn tant que jaayuñ ko rek duñ am jàmm. heure buñ yoree xaalis. day mel ni loxo seen. da leen da leen di lakk. tant que tàqalikoo ak moom rek duñ am jàmm te loolu yëpp li ko waral mooy yi ma la wax nii sabab la ci waaye suñ borom dogal na suñ cabinet bi ñu ngi ciy liggéey lu ama am solo loo xamante ni mm. képp ku ko jëfandikoo wallaahi alazim suñ borom dina la ci defal tawféex boo xamante ne nii danga ne man yéex naa jëfandikoo. yaram bu set nga ci jëlee. yaram bu set wecc dafay purifier yaram ba mu set. Mm-hmm. ba pare ñun yemuñu ci raxasa yaram kese dafa am ñetti aaya premier aaya bi dañoo wër jàngoro ji ba gis ko. Mm-hmm. deuxième aaya bi ñëw. fexe ba li indiwoon jàngoro ji bu mu ñëwaat. Mm-hmm. troisième aaya bi nag ñëw fexe nag aar la ba nga xamante ni jàngoro jooju du ñëwaat. ñetti aay yooyu lañuy def ci doomi aadama bi. Mm-hmm. su yooyu nag matee lum dugg rek suñu borom da ko ci defal tawféex te du ci am benn benn gàllankoor te li ko lim li ñu mu set ci moom dootul ñëwati. foofu ngeen di jaar ak rab bu dee moom. foofu laay jaar ak zaalika rab ba nit ko ak moom alaaj mm-hmm. suñ borom dogal na. fii Sénégal gisaguma ku koy faj ci benn fan man ah. rab traitement wu rab ci benn fan laa koy faj nit ki tàqali ko ak moom ci 24 heures Cheikh Jamal 24 heures sur 24 nit ki tàqali ko ak rab bu mu mën a doon loolu loolu moom sëñ bi ci alquran la waaw al yaa ñaan yàlla mën na lu ne def lu ne d'accord na mhm. Mhm. waaw alhamdulilah lépp rek ci alquran la wallaay dëgg la ñun ni ko yontu ti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diggalee moom la ñuy topp mhm. ñun alquran rek moom la ñuy topp mhm. ak sunna alayhi salaatu wasalaam kazalika ñun moom rek moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy topp mhm. moo tax lépp lu ñuy def rek ci alxuraan lañ koy def am na ci mbir yoo xam bu ñu ko liggéeyee doomi aadama bi ba jox ko ko mu jëfandikoo ko rab daf koy bàyyi te dootul ñëwati ci moom ñu bëri da ngay ñu lay tuurloo deret dafal nangam dafal nangam nangam gu mel ne takk googu képp ku koy def yaa ngi ci danger ray lii sotti ci sàngara maa ngi maa ngi mhm. bu rëy rëy rëy mun na xëy ay faatu benn par benn di xëy njabootam gi tëju luñ dugg du antu fekk ne rey gi muy rey moom moo ko waral mm-hmm. waaye ñun liñ mm-hmm. ci jaar ak nit ki ci alxuraanul karim la mm-hmm. ndax alxuraan dafa am ñetti alxuraan alxuraanul karim dafa am alxuraanul azim am alxuraanul majid am alquranul alquranul karim nag alaaji buur moom lañuy moom la ñuy jàng ci téere yi moom la la yàlla ku laabut bu mu ko laal Mm. alquranul majid nag escalier la rek bu la yéegal ci azim mm. alquranul azim nag moom mooy faj ndax moom la yàlla wax yuntu yàlla mu salaa sallam ne ko wa laqad aataynaaka sab'an min almadani wal quranil azim jox nañ la juróom-ñaari aaya ak alquranul azim ci alquranul azim boobee nag la ñuy faj kooku bët du ko gis loxo du ko laal mm. kooku mbir la moo xamante ni ku naanut ci naanuwaay yi suñu borom di nan la góor yàlla rek mënoo faa yegg ba mën a faj alaaji buur ndeysaan muy lu ama am solo boo déggee théorie bi da ngay xam ni euh, macha allah ku géeju la ci xam-xam euh, wolof njaay dafa ni wax bu feebaree nopp yi koy dégg wér donc wax bu wéree nopp yi koy dégg macha allah euh, dafay wér sëriñ bi ma ñëw rek sama ama dernière question Sénégal soixante-dix-neuf pour cent des hommes ñu ngi waayalee feebaru néew kattan. ñenn ñi rab lañu ko jàppee. Mhm. ñenn ñi feebar lañu ko jàppee tey dem na ba produit produits aphrodisiaques. Mhm. bokk na ci li gën a jaarte ci réew mi. Mhm. te ko mag ñi amoon na ci lu ñu toogoon lu wér. quatre-vingt-dix ans dañu ngénte cent dix ans dañu ngénte te loolu lépp secret la war rek. alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla beneen yoon. ndax yàlla moo ne sant leen ma ma dooli leen. kon suñu borom bu la dafa lay xéwal. da koy sant wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis bu ma la leen dafa defalee xew da leen koy waxtaanee waxtaanee gi doomee mën naa faj feebar impuissance sexuelle wër ci mbedd yi di ko wax mhm. waxtaanee gi mooy nga jëf ñu gis mhm. ndax tubaab lu mu xam mooy preuve mhm. waxtaanee gi du may suñ borom may na ma un million may sol ay dàll ci rax ci mbedd yi damay dem jënd ci yu baax suñ borom xam ne kat maa ngi koy waxtaanee te ci xeetu sant yàlla ci la bokk li nga wax ni nag muy feebar boo xam ne dafa bëri torop ci jamono ju nekk li koy waral nag bari am na suñoo xam te stress moo leen koy jox bu stressé rek mhm. daanaka du yëg seen bopp mhm. wala dañuy gaaw a yëg seen bopp am ñoo xam ne deret ju dee ju nekk ci yaram bi moo dul circuler deret jooju dafa indi impuissance sexuelle mhm. ndax deret ju dee jooju moom mooy indi sax feebaru hémorroïde en réalité pas toog bu yàgg bu doon toog bu yàggalu kon ku judd am hémorroïde mais deret ju dee ju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan digle ne da leen def xijaama xijaama moom la olof yi wax gajj gàjjilu soo koy def muy deret ju dee ji nekk si jëmm ji pour mu mën a dee deret jooju na bu génnee mooy waral la mu deret ju baax ji mën a circuler ñu mhm. bëri nag deret dee di nekk si yaram moo koy waral am nag ñoo xamante nii li ñuy foo dafa bëri lool mooy li ñuy wooyee mballu mhm, masturbation mhm. da koy waral da koy def jigéen da koy def daf koy def dina koy waral parce dina dem ba rey sadit yi ba nga xamante nit ko dootu yëgati boppam façon ren gune mu naan ko te fekk ne ñoor wi ci biir la daggee te ñoor wu daggee ci biir moom jël sànni wala jël jangaar rek moo la mm. ciy dimbali mm. am ñoo xamante ni rab nag moo leen koy defal rab moo leen def mooy indi ñuy duñuy dañuy gaaweeg seen bopp moo leen indil sax ñuy masturbé wu mm. waaye alhamdulilah loolu yëpp suñu borom dogal na am nañu ci solution ndax ci atu 2024 bi ñu nekk nga xamante ni quelques mois moo ci des mu dee faj nañ ci 83 personnes muy impuissance sexuelle impuissance sexuelle bi te li may liggéey duma ko liggéey ci ay sunguf ci ay dafa bari ci mi indi njiixtal ci doom jëmm doomi aadama ci mm. moo tax li may def ci yàpp laa koy liggéey yàpp xar ci yàpp nag <coughs> yàpp nag laa koy liggéey bu ma ko liggéey ci yàpp ba pare jox ko nit ki mu lekk ko boole ko benn fas goo xamante ni moom lay takk lum tële woon tële mbir yi day baax bu fekkee dañ koo takk xala takk xala nañ jàpp dañ takk xala du yëg boppam nit dañ takk dañ ko takk xala muy gaaw yëg boppam mm-hmm. am na ko xam dañ ko takk xala nag maam du dul yëg boppam sax ba ci yegg fenn fi mm. waaye bu dee takk xalaa ko waral dafay dañ bu dee rab moo ko waral day dañ bu dee fob bu bëri bi moo ko waral day dañ bu fekkente ni tamit kazaalika hémorroïde moo ko waral day dañ mm-hmm. te kooku nit ki dafay jëfandikoo ci saa si gis su résultat mais Cheikh xam nga dëgg li nga wax ñaare doo gis comme impuissance sexuelle te amul hémorroïde wala ndoxu siti wala diabète wala ballonnement il faut moom benn feebar bu additif boo xam ne day day contribuer ci loolu mooy cëslaay li moom laa doon expliquer feebar yooyu yëpp feebaru deret la feebar yëpp feebaru deret la diabète li nga xamante ni moom moo di hémorroïde li nga xamante ni moom moo di impuissance sexuelle li nga xamante ni moom moo di ndoxu siti yëpp feebaru feebaru deret la mm-hmm. moo tax nag maa ngi maa ngi maa ngi wax nit ñi di leen diggal ci ñuy def xijaama am na ñu koy def tuddee ko fantus mhm. di ko faral def pour ñu mën a ngàcc seen deret yu dee yi nga xam moom moo nekk seen jëmm yi pour ñu mën a tàqali ko boo demee Nigéria ak euh, Ghana yu si mel mhm. amuñu feebar yooyu parce que jamono bu nekk ñu ngi ñu ngi ñu ngi dindi deret mhm. ji nga xamante moo nekk seen yaram moo tax nag tànk dañu nit ki du am lu mu bëgg mais nag ñun tamit am nañ ci solution boo xamante ni solution solution miraculeuse lay doon wax bu ko nit ki jëfandikoo inchaa allahu rabbi dina tàqali ko ak mbooleemi xeetu feebaru deret yi ba dina amaat satisfaction totale ba buy seq ak partenaire am dina ci gis tawféex bu bu rëy rëy rëy. mu ngi noonu cheikh bi du ma tëj nag te duma ma indaale yóbbante jigéen ñi. Mm-hmm. ndax la majeure parti ci ñoom. sëy naa fukki buur. saa yu mu ëmbee mu tuuru. Mm-hmm. sëy naa buur fukki at aw ma doom. Mm-hmm. ñenn ñi am na ko ma woo barkeem ba. bi ma waxee ak man sama dafa daw ndax nee na ma buur. maa ngi bëgg a ménopause te dégg gu ma alxeyri ma ne ko xanaa ma dem ci Cheikh Jamal rek yóbbante ndax yóbbante bi yóbbante àq la dëgg ah, dëgg la dëgg <coughs> àq la nit ki moom euh, bu la yóbbantee danga ka war a jotal mm-hmm. pour moom ëllëg tamit mu xam ne jotaloon nga yóbbanteem mu am ci tontam bu leer mm-hmm. moo xam li mu ci bëgg dina ko ci amam déet mm-hmm. waaye danañ tontu ci comme niñ ko waree tontee mooy jigéen ñu bari ñuy sëy mënuñoo am doom li koy waral feebar la yoo xamante ni soit mu nekk ci ku góor ki mm-hmm. soit mu nekk ci ku jigéen ki te feebar yooyu noonu médecine mën na koo ñàkk gis mm-hmm. kooku mbiru baatin rek moo la koy mën a gis moo tax kooku li la koy xamal mooy almu nujum moo lay xamal ne ayda nanga mii kat li tax mënul am doom mm-hmm. lii la biddiw bi lii la rawxaan bi lii la lii moo positionné woo ci nangam ci nangam ci nangam ku góor ki tamit kazalika lii la su ko defee nga mën a xam nit ki dëgg-dëgg lu ko teree am doom soo fa jaaree ak moom rek dafay am doom te man solution bi xam moom laa ciy jëfandikoo nit ki su koy utiliser dafay bàyyi ba gis règle ba pare. Mm-hmm. bu ne tey pare na règle rek mu jëfandikoo garab gi boo ko jëfandikoo balaa muy gisaat règle incha allah rek mu jël ëmb. balaa muy gisaat règle jël ëmb. beneen bi mooy sëy yi nga xamante ni. Ah, daanaka célibataire jigéen ñi bari nañ ci réew mi daanaka li sëy bi di. sëy di tas am naa ñett te gars yi des nañu ba tey. mu ngi noonu parce que parce que li li li ëpp ci li waral ci li waral nit ñi takkatuñu soxna mm-hmm. mooy que nit ñi dinañ ñi gis ñuñ bëgg mm-hmm. waaye am maana dafay am ñu leen koy bañale mm-hmm. beneen bi ñu gis ñu ñu bëgg waaye li ñuy sàkku ci ñoom pour mu mën a nekk seen soxna daanaka condition yi moo dul dajee mm-hmm. beneen ñi bëgg nañu takk soxna waaye amuñu luñ yore soxna beneen bi nit ñi bëgg nañ takk soxna am luñ ko yoree pare pour lépp waaye nag am ay gàllankoor yu nekk seen i jëmm yu leen di teree am soxna nit dina am xaalis am kër am oto am mbooleem jumtukaay yi waral mën am soxla te mënu ko am mm. li ko waral nag mooy li nga xamante ni moom mooy gàllankoor yi nekk ci ku góor ki wala bu nekk ci ku jigéen mm. te gàllankoor yooyu tànk dañul nit ki mënul am soxna day am téeméeri waxaale koo ñëw wax bàyyi bi nag ci li nga xamante nii moom moo di euh, sëy yi nga xamante ni yëngu mm-hmm. parce que sëy yi dafa yëngu trop ah, néegu sëy yi jigéen ñee bëggul wujju tamit nag waaw dégg naa yow noonu waaw waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga man jigéen ñi damay wax ni su may xarit lañu. Mm-hmm. ndax dama nit dafa mos a lu tax nga fonk jigéen ñi ma ne yàlla moo njëkk a fonk jigéen ñi kon dama mm-hmm. leen di fonk ndax moom moo jël li gën a cher jox ko jigéen ñi. Mm-hmm. moo tax jigéen ñi alaa kulli xaalin ma fonk leen waaye sëy yi bëri nga xamante ni dafay yëngatu dama koy analyser ci ñaar benn bi nag aspect zahir ak aspect baatin aspect zahir bi mooy. góor ñi ëpp ci góor ñi yërëmatuñ jigéen ñi mhm. ñi ëpp ci jigéen ñi tamit muñalatuñu góor ñi mhm. te nit ki jamono ji nga xam ne yaa ngi koy labat daf yitte yëpp wax ak suma papa wax ak suma yaay wax ak suma tante suma nu bàjjan wax ak ku ne wax ak moom mbokkam ñoom ñëpp ba famille bi ñoom ñëpp d'accord pour ñaanal la ko coono ji ngi ci daj ba nga jël ko indi ko soxna pour man coono jooju ju ko ëpp nga war a daj pour yor soxna si biir kër gi mhm. mais nit ñi dañ daj coono ju bëri pour takk soxna indi ko après duñ daj benn coono pour yor ko su ko mm-hmm. defee ne ci la problème yi di commencé te bëri na luy yàq ku euh, sëy tey mooy téléphone yi mm-hmm. ndax da gis góor ak jigéen nekk ci biiru nekk ku góor ki nekk ci téléphone sëgg ci ku jigéen nekk ci téléphone sëgg ci kenn du am sa temps wu morom <laughs> <laughs> boobu ci aspect zahir bi la mm-hmm. parce que jigéen dañ leen war a muñal yërëm leen jigéen ñi tamit war a suturaal góor ñi boobu aspect zahir bi la aspect baatin bi nga xamante ne sëy dafay yëngu di tas ci ëpp nag mbiru dëddale lay doon soit mu nekk ci góor ki am ko ko bëggoon bawul ko dëddale ko soxna si wala mu nekk ci ko soxna si am ko ko bëggoon dëddale ko wala tamit ba léegi mu nekk ñoom ñaar ñoom àndandoor yoo xamante nii moo leen dul bàyyi ñu sëy mm. moo tax bépp nit buy dugg ci sëy daf ko war a xool ba noppi mm. parce que loolu mooy njëlbeen li mais ñu bëri dañuy bëgganteeg nit ba dem ba dara du takk ñun la Cheikh Jamal xoolal ma ko su la Cheikh Jamal waxee ne baaxul tamit du tere di nga ci dugg suba moo tax sëy nit boo gisee nit dàpp ne kii war naa ko bëgg war a mën nekk sama soxna rek ci début bi da nga koy xool. Mm-hmm. boo ko xooloo nag ba pare nag bu lépp condition yëpp jaaree yoon subaa na ngeen jublu ci li nga xamante ni. léegi naa jigéen ñi bëggul wujj moom da nga leen di ñaanal. waaw alhamdulilah. <laughs> am nañ ci fas boo xamante ni moom euh, alaaj buur jigéen bu ko takk doo am wujj. sëñ bi tax suba jigéen ñi song la wujj rek lañ bañ. te te te te lu mu laaj borom këram mu jox ko kon. moo gën a garaaw nopp xanaa lu mu amul. moo gën a garaaw loolu may liggéey alaaj buur. billahi lazi laa ilaaha illaa jigéen ju ko takk du am wujj ba péncam yàlla te lum laaj borom këram mu jox ko ko xanaa lum amul hmm. mais lépp lum am bu laaj laajee borom këram dina ko ko jox te loolu ak fas la rek goo xamante nii lu fi maam yi bàyyi woon la jaarale ko ci bàyyi ñu ne ñu dond ko hmm. ndax nag al waladu sirru abiihi doom mooy muutu baayam hmm. te li bàyyi maam yi bàyyi woon jaarale ko ci bàyyi bàyyi bàyyi lu ñu ko ñu yor ko ah duñ mujjee puso bi nag muy réer si suñu loxo duñu mujjee puso bi mu réer suñu loxo defe naa ne que liñ ñu cër la woon cheikh bi ci waxtu macha allah euh, daj na mhm. waaye dañuy sant yàlla ci njëriñ li nga xamante ne que mhm. waxtaan bi am na ko mhm. ba ki koy seetaan di ko déglu xelam dina mën a dal ndax dama wax ni yàqkat yi ne ci internet bi lu mu leen jaral yéen ñi jàngi woon ak sàkku xam-xam don na ko war na leen jaral lu ko ëpp ndax nit du nangu ko foye ndonoom dama koy wax chaque jour ñoom dañoo jóg pour lijjanti seen bopp li yéen seen ndono la lu mu leen jaral rek war na leen jaral lu ko kon cheikh bi in uridu islaax waaw in illa mastata'u waaye nag balaa ñuy tëj dañuy ñaanal réew mi jàmm di sant suñu kilifa diine yi ak jur yu baax yi di leen ñaanal yàlla di leen ziyaar waaye nag réew mi dafa nekk réew moo xamante ni réew mi fu mu nekk nii dafa yëngu. Mm-hmm. te ñun dañoo bokk ci ndaw yi nga xamante ni dañoo gëm ne dañuy defar réew mi. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp ay ndaw lañu. yàlla dimbali ñu am président boo xamante ni ndaw la. Mm-hmm. ndaw nag ak gone bokkuñ. ndaw mooy koo xamante ni suñu borom daf na ci moom valeur daf ci moom ngëm-ngëm daf ci moom jub daf ci moom xam-xam daf ci moom tabe. mu fekk li bàyyi ne woon ci muy lu baax ak maam yi mu jaar fi. moo tax ñu gis ne réew mi fu mu nekk nii message message bi may wax mooy képp koo xamante nii bëgg na ñëw si Cheikh Jamal suñ borom dogal mënul ñëw te yaramam di diis ñii naan ko cat la wala rab la ñii naan ko liggéey la dama leen di baaxee benn secret boo xamante ni képp ku ko jëfandikoo incha allahu rabbi lépp lu nekkoon ci jëmmam dina tàqalikoo ak moom. Mm-hmm. secret bi nag mooy dafay bind fatihatul kitab benn yoon fatiha mooy bisimillahi rahmaani rahim ba wala daalin amin fatiha juróom-ñaari aaya la parce que maanaam la sànq yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad aataynaaka sab'an min al madani wal qur'ani al azim jox nañ la juróom-ñaari aaya alquran ju juróom-ñaari aaya yoonu mooy fatihatul kitab mu bind ko ben yoon ginnaaw aaya bu nekk mu dugal ci wa in yakaadu alladina kafaru la yasluquunaka bi absaarihim lamma la majnun wa ma illa dhikrun bu noppee mu teg ci beetu Serigne subaab bi nga xamante ni moom la wax ne wa kun maisan lana min charri si xasadin maa sirril fammi wa sirril ayni yallaahu wa sirril chihri wa sixril xalqi insi ma a jinni wa sawaati suma yallaahu mm-hmm. su noppee mu boole ci doju dënn doju dënn mooy xeeru tiim mm-hmm. su ko defee bu soobee suñu borom di ko sangoo juróom-ñaari fan mm. lépp lu nekkoon ci yaramam dina raxasu ba set wecc ba lu mu ya su doon yaakaar muy tas suñu borom dina ko dimbal ay yaakaaram dina dëggu mm. ba mu jot ci man cee faj aajoom ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di wax ne wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin